amma ba'd mbokk jullit yi ginnaaw ba ñu sant yàlla borom subhanahu wa taala ñoo ngi julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba léegi si cadre séminaire bi di waxoon ne conférence bi nga xam ne moom mooy ci séminaire bi moo nekkoon la crise des valeurs mooy jikko yu yàqu yi cause ana lan moo koy andi forme gannaaw ba nga xam ne am na naka lay manifesté yaa ngi ci société bi ñetteel la mooy solution mooy nan lañu daal di faj yooyu feebar ñu xool ne suñu ustaas bi nga xam ne mooñ ko war a defal mooy suñu mbokk suñu ustaas saytu bi duñ defal lu daal di koy jox kàddu incha allah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 ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومهوى الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة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 ni ko doomu ndey bi waxee ñu ngi fas yéene fàttalante ak yéen ci tomb bii di inxiraaf alxuluqi asbaabuhu wa anwaau wa ilaaju sabab yi nga xam ne mooy sababu jikko yu yàqu yi lan moo ko waral façon yi ak solution tey mbokk yi kenn ci ñun lu mun ta weddi mooy jikko yi dañoo yàqu ci biir ak ci biti biir kër yeeg mbedd yeeg dëkk beeg lépp góor ak jigéen mag ak ndaw ñépp ñoo ànd nangu ne jikko yi dañoo yàqu loolu ñu ñëpp d'accord nañ ci waaye bu ñu yem ci ne jikko yi dañoo yàqu rek ñu noppi na sabab xam noonu laaj lu tax jikko yi yàqu suñu xamee jikko yi yàqu yooyu lan moo tax est-ce que tamit dañuy dem tëdd nelaw déedéet ñu ko war a régler saafara ko feebar bi buñ ko xamee kon dëgg-dëgg garab gi war naa mën a yomb al-inhiraaf al moom la ñuy waxtaanee lan mooy inhiraaf mooy alxuruju an ilxatti walmaylaani anhu dañoo rëdd benn yoon ñu ne ñépp nañ jaar ci yoon wi am benn nit benn nit yoo xam ne dañ leen gis yoon woowu ñu rëdd ñu wàcc ci yoon wi ñooñu la ñuy wax dañoo jéng dinañ laaj ñeenti laaj laaj yooyu bu ma ci laaj rek damaa bëgg yéen ñëpp ngeen tontu fa ida xaraja saiq an ilxati sayri naqulu innahu inxarafa an iltariq kii dawal oto bu tegoo ci autoroute bi di daw ba ci yàgg oto bi wàcc luñ koy wax benn dara c'est pas possible fa ida xaraja saiq an il xatti sayri kii daw oto bi bu wàccee yoon bi ñun ñëpp lu ñu àndoo naqulu an il tariq kii de dafa wàcc yoon wi dafa saaraani dafa màmm ida saara nahr bittijahin axar gayru majrahu rais naqulu inna nahra inxarafa an majrahu dex gi ñu ñëpp ni ñu miinoon mooy dex gi fii lay yem ñu xëy suba rek dex gi daal di xëtt maam dugg ci biir kër yi màbb lépp lu ñuy wax ci dex googu mbokk yi isa xarajat almarkab alfadaiya an madaariha étoile yi ngeen di seen kaw asmaan benn bu nekk dafa am ligne wu yàlla rëdd mu ci daw wa kullun fi falakin yasbahuun benn bu ci nekk bu génnee foofu luy xew hakaza hakaza ayuha al ida xaraja al عن ضوابط الدين وقواعد الشريعة نقول عنه كما نقول عن السائق أو النهر أو المركب jullit a ngi nii jullit jullit baa ngi nii yàlla rëdd sariya am ne ko jaar ci jullit bi tegu ci sariya ba caag mu daal di mam wàcc sariya bi dugg ci ay bida ak ay sirk lu ñuy wax lu ñuy wax ci kooku ah yàllaa ñu rëddal aw yoon yoon woo xam ne buñ ci jaaree rek dañuy baax ñun ñëpp suñu jikko day baax kenn ci ñun du am jikko ju bon kenn ci ñun du bon même boo tarxiisee nga def bàkkaar sax du tax nga bon dañuy wax ne def na bàkkaar waaye du ko bon parce que mi ngi jikko ju baax amma léegi nag yoon woowu yàlla rëddoon dañ koo lem yàlla rëdd yoon wi ne jaar leen ni ñun ñu ñëw ut yeneen yoon daat ci jaar léegi ba pare ñu ne ñun danañ baax parce que dinañ baax duñ baax loolu mooy inxiraaf al fisq mooy inxiraaf ba tey génnuk topp loolu yàlla yàlla faasiq ku génn topp rek in xarafa da ngaa jeng jàdd yenn saa yi ñu ne azeyg wa huwa al mayl an il qasd mooy jëng wàcc yoon wi nga xam ne foofu nga waroon jaar walla ñu ne yoon wii ñu rëddaloon kii de yoon wi da ko dox ba ci yàgg mu daal wàcc yoon wi mbokk yi bato yi ci biir géej dañ leen a rëddal ay yoon yu ñuy jaar wala avion yi ci kaw asamaan dañ leen a rëddal yoon yu ñuy jaar wala wala tali oto yi dañ leen a rëddal yoon yi ñuy jaar wala waa léegi biir géej gi ñan ñoo rëdd yoon yooyu waaw lu xew biir géej ñu rëdd yoon yi du nit ñi ñoo ko tracé ngeen fii lay jaar fii fii baaxul utal leen ay busal utal leen ay carte te ji nag ña ñoo rëdd yoon yi nit ñi tali yi ñoo ko defar nit ñi laal moo tax ñett yi yëpp ñu respecté ko yàlla rëdd yoon ne jaar leen ni ñu bañ loolooy wax bi respecté nañ bato bi ah buñ fi jaarul la ñuy lu leer la gars yi ñoo ko wax gis nga ñëpp ne wax nga dëgg de ana capitaine bi mu ne maa ngi ñu ne ko téel affaire bi waaw foofu la bul faale kenn loolu la gars yi di wax ana avion bi ñu ne maa ngi nii ñu ne ko ndeysaan li waa ji wax mu ne na doxalu taira ñun ñëpp dañuy dugg ci avion Boeing ñun ñëpp ñu nekk ci jàmm am confiance nga gis koo xam ne ndeysaan ci biir booyin bi mu ngi taal télé di seetaan nga gis mu ngi koo xam ne mu ngi taalal ay tànkam yor journal nga gis koo xam ne mu ngi njaganaayoo benn mbaggu xale bu jigéen mi ngi am confiance alaysa kazalik ñëpp a ngi féex ku nekk yaa ngi jël sa temps ci biir avion bi avion bi fan la nekk fu nekk laa ilaha illallah xoolal ñëpp a ngi am confiance mu ne mbokk yi ñun ñoo ngi dugg ci gaalu dund avion wu dund yàlla yore ko kenn amul confiance dégguleen leen ma de ñu bari dégguñu li ma wax dañuy nekk ci kaw Boeing xoolal fi nekk mi ngi fees dell ak ay nit ñëpp a ngi féex ñëpp a ngi ci jàmm wala ku nekk am nga confiance ci ñuy dawal ñun ñëpp ñu nekk ci avion wu dund yàlla yore ko kenn amul confiance dund gi ñuy dund ku ko yore mais amuñu confiance bi ñu nekkee ci avion bi am nañ confiance ñu nekk ci bato bi am nañ confiance ñu nekk ci oto bi am nañ confiance bi ñu nekkee ci loxo yàlla ñu ne wóorut de wóorut gars ku ngeen àndal ñu ne yàlla ñu ne yàlla kese kese loolu wóorul wóorut de inna lillahi wa inna ilayhi rajiun sunu dund lañ déggul mbokki jullit yi lu doy waar la ñuy dund tey sunu fo sunu dund loo xam ne neexut a nettali neexut a wax c'est parce que jullit yoo xam ne dañuy dund te xamuñu seen boroom jullit yuy dund xamuñu seen diine inxiraaf bii ngeen di gis jikko yu yàqu yi ngeen di gis dafa am asbaab dafa am sabab sabab yooyu bi ci njëkk mooy doful waasiu diini diine diine la nit ñi njëkk a sànni diine moo amul importance ci nit ñi diine diine diine loolu ñu naan diine moom la nit ñi gëmut nit ñi fi ñu teg seen dund teg ko seen alal teg ko fa seen jabar yeeg seen doom yi kenn tegu fa diine benn mbokk boroom xam-xam bu baax da cee def misaal bu doy waar ci nit ñi ni ñu mel tey ci diine mu ne dafa mel ne benn waay boo xam ne dañ ko may 4 x oto bu bees tàq comme oto bi tegagul ci tali bi mu ne daf koy roode ñu la mayee oto comme tàmmagul daw danga koy dawal lu sori distance bu sori pour mu tàmm ko pour mu tàng pour organes yi mën a sàmm loolu mu ne waaj bi muy dem di roode ji oto bi soxnaam ne ko nijaay yóbbaale ma mu ne ko waaw loolu kay mbégte la yéegal doom yi ne ko papa mu ne yéeg leen sooy tukki nga yóbbaale sa doom ak sa jabar xam nga doo dem loxoy kese foog nga dem ci coffre-fort bi ubbi yóbbaale dara tukki booy tukki yaa ngeeg waruwaay bu gaaw yaa ngeeg sa soxna yaa ngeeg sa doom yaa ngeeg xaalis tukki boobu day neex wala du neex gaa yooyu di daw ba ci àll bi am ku leen freiné stopé leen ñu taxaw ne du ngeen ma yóbbaale gaa ne ko yow la kan mu ne man la seefaa gaa yi ne ah <laughs> soyez bienvenue <laughs> ahlan wa sahlan wa marhaban mu ne soxna si soxna si ne mu ko demal ci ginnaaw safa kaay ci kanam ñu dawaat lu sori am ku leen stoppé yow la kan ne man la euro ne seefa ci ginnaaw euro kan seefa mu ne ci ginnaaw euro foo nekk ne kaay ñu demaat lu sori am ku leen stoppé yow la kan man la dollar c'est pas euro mu ne ci ginnaaw tukki boobu xanaa mbokk yi war na neex yaa ngi tukki say doom ñëw nañ sa soxna ñëw na ñetti façon xaalis yi gën a kii ci àdduna ñu ngi ci léegi lu des ñu daw ba ci kanam am benn góor daal leen di estobe bu sol yére yu weex ngi kaala kaalagu weex sikkim bi mu ngi weex mu ngi yor ci loxo càmmoñam loxo ndeyjooram kaamil mu ngi lor ci loxo càmmoñ bi sijaada du ngeen ma yóbbaale ne yow la kan mu ne man la diine waaye diine diine diine oto bi fees na diine mu ne ah, ma ne oto bi fees na ma dimbali ma ngir yàlla rek jàppale ma no diine oto bi fees na yow tamit toi oto bi fees na mu ne dugal leen ma ci maal bi ñu ne non bagage yi ñoo fa nekk mu ne ma yéeg ci kaw ñu ne dañuy jàpp léegi xam nga nu ñuy def lay taxaw suñ demee ma yegg ma def demi tuur ma jël si la ngi nax diina ndeysaan ñu ne na garaaw ma taxaw ñu ne waaw ñu départ daw lu toll noonu benn ponkal taxaw ci digg télé bi taxaw loo leen ñu taxaw mu ne man de damay dem ñu ne ah da dem yow mu ne man la de man bu ngeen ma yóbbee damay dem bu ngeen ma yóbbul damay dem ndax yéen laa jëlsi gaay ne ko lu ñuy musal mu ne diine lu ñuy musal tey mu ne diine rek hatta iza jaa ahaduhumul mawt qaala rabbi irji'uuni la'alli a'malu salihan fi ma tarakt yàlla mu ne kalla innaha kalimatun huwa qaa'iluha wa min waraihim barzakh xoolal waaj tey nee nañ ko diine lay musal te yóbbaalewul diine yóbbaale na yëpp sans diine est que du perte mbokk yi diine boobu mooy sunu problème tey ñun ñii ñëpp nanguwuñu diine nangu doon lu nekk am des diine lan moo a loolu lu tax amuñu diine mooy diine la ñu jàngalul diine jànguñu ko lu nekk dinga gis Sénégal ñu koy jàngale ba mu des diine depuis jardin d'enfant nag ba keroog ngay am doctorat su la yàlla baaxewul ci say góor góorlu say dugg dugg doo jàng diine nooy baaxee te diine moo war a baaxal sa dund xamoo diine foo jëm min jahlin fi taalimi diin dañ koo réere ba mu jeex tàkk aw wala alfahmul xaate wala ñu dégg dégg nu diine déggin bu bon loolu mooy loolu doon moo dal Sénégal jànguñu diine ba pare déggin bi ñu dégg ci diine déggin bi baaxul xoolal fii lan lañ dégg diine lekk rek lekk lekk rek amma diine bu set bi jóge woon ci yonent alayhi salaatu wasalaam déggunu ko beneen bi mooy wal ibtiaad an manba ad diin al haqiqi al kitaabu wa sunna dañoo sori balluwaay teen bi nga xam ne moom mooy balluwaay bi nga xam ne ku ci naan rek defaru te mooy alxuraan ak sunna nit ñi bu ñu waree dund diine war ko jël ci alxuraan ak sunna te comprendre ñu alxuraan ak sunna fu jëm déggunu ko xamunu ko léeg-léeg sax nga nit yàlla nee na mu ne waaye nag mag ñi nag waaye nag dëkk bi nag waaye nag sama famille nag waaye nag sunu kër nag waaye nag paa bi waaye nag sama jëkkër waaye nag sama jabar waaye samay doom yàlla nee na nga wax waa de mu naan mais c'est que xam nga loolu tey bu ma ko waxee soxna si rek day dem bu demee nga wuti keneen kon nu ñuy dundee diini fuñ jëm mbokk yi wa tasdiq al ittihamat bi annahuma masdarul irhab xoolal tey diine tey adduna bi li ñu dégg diine mooy lan terrorisme boo dee diine rek ñu ne yi dañuy ay terrorisme lañ fi bëgg a indi bañ nañ ko sax temps président moo taxaw naan bu ñu kenn indi diine boo xam ne dañ ko importé du loolu wax Sénégal lan lañ importé wul laaj Sénégal lu ñu dañoo amoon benn dawra insti islamique ay naar di ko def ñu jóg ñu indi fa nag benn question bu bu doy waar nag wax dëgg yàlla question bi dafa ëppoon léegi am am ñu ko tontu tontu bu doy am ci biir mbooloo mi comme ñëpp fa nekkoon am ñu mer bi ñu génnee ci mbooloo mi am ñu ne yéen yéen arab yi ngeen di jaamu quoi arab yi moo tax ngeen di xas sunu maam yi quoi yéen arab yi ngeen gëm. man ko sawaay même yéen sax arab ngeen gëm ndax Cheikh Ahmed Tidiane arab la Abdul Qadir Jeyri arab la yonent yàlla Muhammad arab la koo fi gis bu fekkee dañuy jaamu arab rek yéen sax da ngeen di jaamu arab wala du dëgg kon lépp dañ ko importé bu dee ci tubaab yi la tamit da ngeen a kon kay jeex na waaye ñun lu ñuy yor importé wuñ ko parce que wa ma arsalnaaka illaa kaafatan linnaas yàlla yónni muhammad alayhi salaat wasalaam ci nit ñam kon yàlla yónni yonent yàlla muhammad ci ñun kon na leer ci ñun tuumaal te yu ñuy tuumaal islaam du islaam léegi nag sabab yépp bi ci jiitu ci jikkoy yàqu yi mooy al bu'du an manhajillah al wahid zil jalali wal ikram dundin wi yàlla bëgg moom la nu sori moo tax ñu daal di yàqu dundin wi yàlla bëgg nu dund moom la nu sori moo tax jikko yi yàqu jikko yi dara mënu ko defar ci kaw suuf lu dul li yàlla wax bu yeboo nit ñi nañ leen yóbbu ci université tubaab yi anglais yeeg français yeeg allemand yeeg tout portugais ñu jàngal leen ba ñu normal keroog la jikko yi yàqu ku jàngul diine rek sa jikko du baax ndax diine moo ñëw pour defar jikko yéen dama leen di laaj est-ce que tey ñiy légaliser góor ak jigéen góor ak góor ñuy sëy jàng nañ wala jànguñ ngeen tontu ñoo ñoo leen raw yéen it ndax ñoo ñoom ca ya kon jàng nañ ñiy légaliser jigéen ak jigéen ñu sëy jàng nañ wala jànguñ voilà ñi légaliser jigéen na jaay boppam jàng nañu wala jànguñ ñi may carte ñuy jaay sàngara di def lu nekk jàng nañu wala jànguñ a ah, kon lu tax lu tax ñu jàng ba pare di def lu bon loolu parce que jànguñu diine loolu mooy wax bi diine sori diine yàlla manhaj bi yàlla bëgg dundin wi yàlla bëgg nañ ko dund suñ ko soree mun noo baax dañuy sonal sunu bopp duñu baax muk mukk ci kaw suuf faqad jaala allahu taala shariatahu isma min alxata yàlla dafa def sharia bi yàlla def ko aar njuumte du ci nekk moo tax ku ci nekk soo koy dund doo juum parce que yàlla moo aar sharia bi yàlla moo ne li leen di baaxal fii la nekk li leen di baaxal ci diine ji laa ko des yàllaa ko aar moom diine ji sharia bi wan najaatu min az-zalal yàllaa ko aar ci tarxiis yi lu baax rek la diine ji di digle bañ nañ ko sax ba diine ji lépp lu bon def ko araamal jëlal sàngara soo ko naanee lu mu lay def yàlla tere la ko jëlal carte boo ko tàmmee fu mu la yóbbu yàlla araamal ko jëlal njaaloo jëlal lu nekk ci lu yàlla tere ne araam na da ngay fekk ku ko def dootoo amati qualité dootoo amati personalité da ngay yàqu yàlla tere ko nit kon diine ji moo ñëw pour jikko yi baax fa hiya xayrun kulluha diine bi lépp dafa baax wa baraka kulluha lépp dafa am barke wa saada kulluha lépp texe la waaw lu fi desati kon diina joo xam ne léppam yiw la léppam barke la léppam texe la lu ko fi nit ñi bàyyee dem ci leneen nit ñi ñoo bëggu tabaax waaye li leen baaxal mi ngi nii jóge wu fi gaañi li baaxaloon Aboubacar yéen waa Sénégal ndax mën ngeen am ku baax ku mel ne Aboubacrin question bi saa yu ma ko laajee kenn du tontu xool ñëpp daal teg parce que dañoo gëm ne am na ñu gën a baax Aboubacar. waaw ah, dox tontu leen ndax am na ko gën a baax Aboubacar Sénégal ah, waaw waaw eh, may noppi du ngeen wax déedéet ndax am na ku gën a baax Umar Umar Ali Bilal ñooñu ku leen defar alxuraan diine bee leen defar waaw li defaroon ñooñu mu ngi fi alxuraan bi dafa dem mu ngi fi waaye ci ay këyit ci ay kaamil la nekk ay këyit nekku fi comme lu nuy dund moo tax du baax suñu bëggee gaa yi mel comme Omar gaa yi mel comme Aboubacar comme Ousmane comme Ali comme bilaal comme Musab comme Ammar kay dund léegi dex ga balloon ñële garab yi meleen meññoon léegi ñu amaat loolu wallahi léegi ñu amaat ko léegi ñu amaat ko ci lu gaaw waaye bu fekkee dañ koo teg def ko téere barkeelu kuy xëy suba rek daa di diw ba doyal génn dem <laughs> yàlla waxul fenn diwu leen alxuraan wala am na fu ko aaya bi lan la diwoo leen ko amul kon diine ji léppam yiw la yéppam barke yéppam texe biha baqaul alam wa saadatihi adduna bi mu des di baax ak texe ci alxuraan rek la ko yàlla def ci sharia la ko yàlla def yàlla def ko feneen su fekkee adduna bi gis nga même sax adduna bi li fi des di baax nii li fi des di baax mu am ñu riposté mbaax di fi des ñan la jullit yi la su jullit yi jóge woon ci adduna bi rek yàlla tukkil ko jàngeen ci màndarga axiru zaman bis bu ñu xëyee ku amul iman fanaanul ci suuf yàlla day tukkil adduna bi adduna bi li mu ko bàyyi mooy jullit yi bis bu ñu xëyee ku bon yeewuuf ku baax yeewuuf yàlla tukkil adduna bi kon fiha rushdu njub ci sharia bi la nekk wa salaamati adduna bi pour mu am jàmm ci sharia bi la nekk mbokk jullit yi jikko ji yàqu ji fi mu tàmbalee commencé tasaaroo ndox mi ndox mi fitio bi bënne ba ndox mi dem di tasaaroo di walangaan di dugg ci kër yi di feesal kër yi xam ngeen fan la xam ngeen fan la jikko yi yàqu yi tàmbalee xam ngeen ko mooy keroog ba nga jógee di tànn jabar keroog ba ndaw see jógee di ut jëkkër kii daa di échec ci tànn bi mu doon tànn jabar kële daal di échec ci tànn bi mu doon tànn jëkkër keroog la doom ja ciy judd daal di yàqu jikko yi yàqu foofu la problème bi nekk dama yor benn photo ci sama portable waa ji bind aziwaaj al fasil mariage bu échec mu ne rajulun ixtaara jasada ku góor ki moom dafa demoon di uti jabar ndeke yaram kese la am bopp nopp bët tànk loxo loolu la am ku góor ki dafa demoon tànni jabar ndeysaan ndeke bi mu demee yaram kese la am yaram ku jigéen ki dafa jógoon di am jëkkër ndeke bàgg la am bàgg ndeysaan yow da ne ab jullit nga yow danga ne dama bëgg taxawal islaam ci kaw suuf nga dem ut jabar joo xam ne yaa moom bokk leen bëgg-bëgg yow danga ne jullit bu jigéen nga danga war a defar société bi danga war a taxawal usra muslima famille boo xam ne ay jullit lañ nga dem ut benn rapport mu takk la wala nga wut benn mbër mu takk la wala nga wut benn gaynde après ngeen am doom foofu la société bi tàmbalee yàqu al imam Xasanul Banna dafa ne su fekkee dañoo bëgg am société islamique mu ne il faut ñu defar individu yi ku góor ki defaru su defaroo mu dem uti ku mel ni moom waaw nga xam ne ku góor ki boo buggee biddanti naafila sax sa soxna ne la nii nga sigg xool ko mu ne la quatre heures jot na de tegal naa la ndox ba pare man sangu naa ba pare yow yaa ci des lal naa sijaada yi nga bëgg ne mu ne la non papa jógal loolu sa yaram day doo sax nga jóg wala waaye bi nga bëggee tànn jabar jooju da ngaa romb da ngaa romb kooku da nga dem uti koo xam ne bi nga bëggee jóg waxuma sax mu ne la quatre heures jonne waaye kii bi nga déggee ñu ne asalaatu xayru minan nawm nga bëgg a jot mu ne la nga daal di tëddaat est dina dem ndeysaan kon ndekk ñu ñoo tooñ suñu bopp gars yi yéen da ngeen a def tey séminaire ngeen de da ngeen di laaj lu tax jikko yi yàqu yéen yéen a yàq jikko yi ndax yéen dem takk ñoo xam ne warul leen takk yéen yéen a ut jëkkër yoo xam ne waru leen ko am doom yi ci juddu dañuy yàqu ah xoolal alquran innal muslimina innal muslimina wal mu'minun nga dem aaya ba sax ci bon ñu bon ña yàlla mu ne wal munafiquuna wal musrikina léegi nag yéen ngeen jël innal muslimina wal mushrikaati parce que day dem wala dem lan la yàlla wax wala tunkihul mushrikaati hatta yu'minna wala abdun muminun xayrun min mushrik walaw ajabakum ci ku yàlla wax ku jigéen ki loolu la yàlla wax léegi dañoo bëgg a defar ji koy su ma defaroo ndaw su defaru wallahi buñ juree doom suñuy naafi la guddi mu nekk suñu diggante waaw xale bi bu juddoo ci environnement boobu ci jikko ju baax jooju fekk yaayam ak papaam ñuy jàng alxuraan lañ yaayam ak papaam ñuy woor lañ yaayam ak papaam ñuy julli guddi lañ yaayam ak papaam du ñu wax ñaari mbokk dañ maa invité ci benn kër xaw na yàgg tuuti oustaz daal vraiment yow dañ la bëgg dañ la bëgg yow nga ñëw yendul ñu mu am benn problème jox ma seen adresse may xëy dem ma wàcc woo waa ji téléphone mu ñëw jël si ñëw sone buntu kër gi mbokk oustaz ñëw na de allahu akbar mbokk anamu mbokk mu ngi nii man daal nekk naa kër gi ba génn mbokk mbokk mbokk mbokk mbokk añ bi fu mu waaye mbokk leen mu pare mbokk indi torsion yi ñoom ñaar loolu ñëw mbokk mbokk ma ne allahu akbar nekk am na ñuy dund de loolu mooy mbir mi xam nga kooku ñaar ñooñu déjà ci baat yooyu ñuy waxante am na fuñ jaar am na formation bu ñuy def seen diggante parce que am na lu imaginer xale bu juddu foofu gis yaay jeeg papa ji li ñuy waxante mbokk mbokk nangam nangam xale boobu nu muy def c'est ça day xam nga ñee dañ doon wax mbokk moom day bokk kon nañ bàyyi xel ndekk ñun ñii la ñun ñoo teggi suñu tànk fu ñu waroon jaar da nga gis léegi li xaw ci jamono xale buy jël ba kuy kiris karas takk waaw waa joo xam ne def na vingt ans ci sunna dara desul muy takk jabar li <laughs> mais booy nag nga lekk way way gars yi buy jilbaab da waaru day yow ana sunna bi nga doon wax xanaa da fàtte li la tax a jóg da fàtte li tax nga jóg yow mooy da ngaa bëgg a taxawal usra muslima société kër goo xam ne famille boo xam ne ay jullit lañ nga bëgg a taxawal famille boo xam ne ay jullit lañ papa juy jàng alxuraan yaay juy jàng alxuraan doom ji lu muy def arab yi dañuy wax ne isa kaana rab bayt bi duffi daari bu dee baay ji day tëgg sabar yaay ji di tàccu gaa yi doom ji nu muy def julli kon incha